su dee am ngay mbokk na nen la wax nga ba ma defal say dil jaayal say cantine neexalal ay kilifa ragal leen seen ginnaaw parce que cogg nga loolu yow la concerné Sénégal léegi cogg yi rek a riche di may ay borom xaalis jigéen di jegee artiste di dugalante di am say bés di organiser nit ñi ngay encaisser cas social yooyu moo dox ci réew mi boo paree wayaan bi toog business class foog ne yaa ko jënd business class yi nii business yi ngeen def ni ku ko si jënd ñetti yoon daanu de xam neen dëkk bi nu muy demee waaye su la xaw ma lan su la bàyyee bàyyi ko mais ma répété ko te insisté ci Khadija Sissoko tëddul ci jàmm dafa bëgg justice te den koo kortu mu dee jabaru kilifa moo ko def xam nga su ma wax yële boolewu ma ci woon ne bi mu jeexaleeg Seydina Thioune nag la nekk ak kii te loolu xam naa ko ndax maa doon sëriñi caga ji sëriñi band yi sëriñi lesbiennes yi sëriñi góor jigéen yi sëriñi musiciens yi sëriñi sëriñ si ñëpp maa doon seen sëriñ fu ne laay dugg lu ne laa xam mais nag du ma wax fekk tooñuñ ma mais buñ ma tooñee du ma desal dara beneen bi ci des message bi pour yéen xale yu jigéen yi la kaay leen ma wax leen lan moo xew ci dëkk bi ngeen xam yéen xale yu jigéen yi dafa am ay sëriñ yu bon yu nekk Sénégal ñii Burkina Faso la jóge ñii ngi Indo ñii Kenya ñii Mali gi ñii biir Sénégal xam-xamu ilmu nujuum mooy biddiw soo ko amee dangay xam ne kii biddiwam lii la léegi nag homme d'affaires yi dañuy am jéegi duulkat am góoru yaay taajal ma ñeex ba pare am sëriñ am relation ci institution yi wéeru ci benn kilifa diine ne mooy seen sëriñ juróom yi la ñuy doxee homme d'affaires senegal koo ci gis bu bokkul tuubaa bokk na Tiwaan bokk na nangam te bu jaaxlee du dem Touba xanaa ñu bëgg a téegal ndeem rek mu daw dem ci sëriñ bi ñaan intervention léegi nag <coughs> boo amee compte réseaux sociaux wala nga dem ci siri yi film yi man Cheikh Ahmed Cissé bu ma gisee jigéen rek xam naa sa biddu te man maa man maa ñi gën a yées ci ci majjo bi am na ay xaarif am na leneen ak leneen léegi nag yow jigéen ji sa baatin la sëriñ bi di xam contacté borom alal bi na ko dina la defaral benn affaire jigéen ju ci séeri nangam doxaan ko bala ngay tëdd ak moom defal lii boo tëddee ak moom defal lii dëgg leen bu baax li may wax dama leen di woon lu tax jéeg ji di défendre boroom xaalis bu ñu defee ñaawteef mafia la lii lépp xamoon naa ko mais su tudd doon su ma tudd démb du ma wax lii la ndax dama xam réew mi léegi nag sëriñ bi day woo borom alal bi borom alal bi du la mën a jot jéeg ji lañuy woo wala góor taajal ma ñeex su ko defee mu ne la aloo jànq na nga def pourtant nag série bi yaa ngi góorgóorlu de <laughs> man ne suma benn kilifa daal moom ma topp sonnal ma rek ma ne ko suma xarit bu baax nga lam lay wax dil bu mu teg ak kilifa gi la wax ma foo nekk am na sa lu mu ma jox pour ma jox la ko suñ ko joxee deux millions mu indi la un ba pare taxaw pour nga mosal ko dara nga mosal ko benn trois cent mille mu ne la lii nag na yem ci ñun jàpp naa la bëgg naa la jox la confiance fekk dil bu mu war a teg moog waa ji la waa ji Radisson lay jël place wala teeru bi ndax juróom-ñaari rawxaan yi téye ndakaaru benn bi foofu la dëkk mu ngi julli jee ci mosquée de la divinité fa la rawxaan bi di jullee taalibe tijaan la amat Diop Diagne Dayra moo ko jox wirda dama ne rawxaan yi téye ndakaaru juróom-ñaari benn bi foofu la dëkk njabootam gi am na ñu ci dul jullit mais moom jullit la taalibe tijaan la Ahmad Diagne Daare moo ko jox tarixatu yi mu jëlee ko ci Maodo Malick wala su ma xoolee nit na ma yow doo Sénégalais damay noppi rek xam ne li ñu xam ci réew mi jomaay jomaay bu ñu dégloo bu ñu bu dégloo gën a xam lu mu xamoon ci réew mi ñu ci bëri fa leen leen di jox rendez-vous te kilifa yu bari balaa ñoo tëdd ak yow faaw ñu dugg ci duus bi balaa ngay ñëw lañuy ñuy làq saafara place raxasee ko seen kooy wala ñu laal la ba pare dem dugg ci toilette bi ñëwaat rek laal la noonu duñ nangu nga màccal leen gis nga boo fa jógee sa biir bi day métti sa première règle dafay yàgg wala doo gis règle ñi dund li may wax xam ne ne lii mënta nekk invention xam ne bu baax li may wax fa ngay jógee mu mel ni am na lu lay ngàcc nga mel ni ku manqué ay fer ay fer ñeent mel ni kuy miir loolu dina la dal pendant un mois après mu lay daane di la ñëwal yow nga foog ne sa ange yu baax ak say parfum leen la bëggee fekk am na lu ñu rocc ci yow gis nga buñ ko roccee ci yow pare nañ ci ñoom dañuy gën a am moo tax léegi-léegi yéen jigéen ñi ngeen nekk góor mu invité leen hôtel benn ñaare mu riche te doo ko doo ko mën a jot xamoo fu mu jaar ba am alal dafa am lu mu jël ci yow sacrifice la gis ngeen sacrifice du joxe baaraam wala joxe bët wala ndàngam déedéet sacrifice affaire la baatin la dafa am looy liggéey defar ko rek bind ci tur bi am looy defar nangam nangam mu invité la mu ñëw mu tegal la 3 millions te naan la non tu man sa papa la lii boolewuñu loo bëgg wax ma discours yu baax leen lay jox yow 3 millions yi ñu la jox day seddal sa xol ak discours bi nga am confiance tëdd boo tëddee sa àdduna yàqu na gis nga lii seeni moroomi jigéen yuy woote soit disant influenceuse ak jet setteurs ak ju perte ju nekk ndakaaru ñooy courtier boroom xaalis yi am na benn fecckat boo xam ne dafa jaal <coughs> loolu la doon liggéey mais moom benn xale la ko defoon bambara yi jug ci ñoo ko yàq ni muy wër di wax rek tekkiwutul dara ci àddina ndakaaru dafa lëndëm ku ñàkk xamal sa bopp mu des beneen bu fekkee ne nag da ngaa am wërsëg nga doon jigéen ñu bëgg a jël sa wërsëg. xam ngeen damay dégg ñu naan noo naar yi fu ñu jógee jëluma kenn wàcc leen suma live joué wu ma man joué bu amal nit ñi njëriñ laay def. tey da ngay gis nga am wërsëg suñ lay may xaalis bàyyi leen xel bu baax li may wax da ngeen di gis benn dix mille mu mel ni lu leemu ci biir un million bi. yéen jigéen ñi boroom xaalis di may xaalis te xaalis bi boo ko xeeñee dafay am beneen xet bu wuteeg xaalis gis nga boo utiliser xaalis boobu loo ko jëndee doo ko muurloo boo ca ubbee place day daanu te doo xam lu tax piège la pour sa wërsëg dem ci ñoom parce que yàlla ñaari aliwa la am lawul maxwi ak lawul maxfuuz lawul mahwi luñ ci bind mën na changer lawul mahfuz du changer pour toujours man góor laa du ma mës a doon jigéen waaye lawul mahwi nag wërsëg day yokk di wàññeeku mooy waral léegi-léegi nga liggéey fenn ñu lay fay 2 millions nga toogaat ñàkk liggéey mooy waral nga dem sangu joxe sara sa wërsëg yokku wërsëg day mel ni tuyau bu la tiim lu ndaw la mooy li nga doon nàmp sa weenu ndey su yàggee ruy bokk ci ñu yokkaat bu yàggee ceeb léegi nag boo sangoo saafara day ubbi tuyau bi ndox mu bari ñëw sa wërsëg yaatu kon wërsëg lu ñuy téye la lu ñuy bàyyi la lu ñuy yokk la lu ñuy wàññi la te yàllaa koy dogal ñaari àll wala yàlla am fii bu bindee du effacé fii day bind di effacé fii day bind di effacé ma foog ngeen xàmmee yàlla nag waxuma xam yàlla foog ngeen xàmmee yàlla xam li yàlla dul changer ak lu yàlla di changer. kon yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci télé yi nekk ci théâtre yi nekk Dakar di jaay taatuure yeeg bajo bu saf maa ngi leen di seedeel ci yàlla ne yéen rek la ñuy sacrifier suñ paree nag. dañuy wax jeeg ji jox leen xaalis ne wax leen yu tiktokeur yi ne tiktok dafa am rab mais loolu dul la tiktok amul rab tik yéen déglu leen bu baax tiktok ban rab moo ci am ay robot la xam-xam ñu defar ko machine teg ana rab yi bàyyi leen caaxaan ñoom ñooy balancer loolu jox ko ustaas ñu naan waa tiktok boo wanee sa jumbax da ngay dee c'est pas tiktok bi leen lay seetaanee xam sa wërsëg jël la ba pare def la lu bon def la lu ñaaw bàyyi la ba pare jéeg ji fàttu ko mafia Sénégal moo tax arrangé wu ma leen. da fa ne ñi may yuuxee yëpp di dal naan fenkat la ñoom la bàyyi leen xel foo kont yi ci seen mafia bi rek la xale yi leen di topp ñooy ñëw seen Ahmed day duul bu leen ko gëm bu leen ko topp. bu leen ko gëm bu leen ko topp man may wax xam-xam bu seen bàyyi xamul seen ndey xamuñ ko ma jàng tarbiya. jaar fi ma war a jaar miin ndakaaru di gis rab ni may gisee doomu aadama di wax ak jinne su ma paree wàccee suma bopp di kaf di ambiance mais xool leen doomu adama xool suma jëmm ji ngeen xam kii mooy kan ci nit ñi du ma ñoom du ñu man waaye su ma wàccewul suma bopp yi ñëw ba tollu ngeen ci tiktok bi li ngeen di jëriñu ci man ci njëriñ du ngeen ko jëriñu moo tax damay lire commentaire kii fen rek kii duura du ma sax faale parce que li may wax xamoo ko yow mais bu subaa ngay comprendre bu subaa ci ngay xam lan la Cheikh Ahmed doon wax TikTok amul benn rab c'est faux du dëgg xanaa kon WhatsApp dafa am rab xol yu bon yi mooy rab yi ak jëf yu bon yi nit ñu bon ñu loolooy rab mais pas TikTok c'est faux c'est pas vrai su ko defee tey ñu ñëw jël sa wërsëg mooy waral da ngay gis xale bu jigéen bu tàkk billaahi wal bi li may wax comme dalu dalu la xale bu jigéen bu tàkk bu ne tisoo góor na ko yaram kàllaa oto yi di rang di ko teral muy jàng léppam nice jour bi ko góor tëddee la la yëppam di fay lam jël ci yow moom mooy mujj tàkk yaa koy toppaat di daw billaahi wallaahi tallaahi sponsor sa dootoo ko amati dootuñ la woo clip dootoo dugg ci série ñaata nit ñoo nekkoon ci ay série pour ñu dund seen wii dañuy daw tëj seen Instagram tëj seen YouTube tëj seen yëpp ngir ñu bàyyi leen ci état bi ñu dund. li may wax ni ñi doon victime mënuñ koo wax billaay duñ génn ci internet wax parce que dañuy bañ ku leen saaga yaa ko def bi ko sooy wax rek ñu yónni benn influenceur mosal ko dara mu taxaw. su doon aadama salaamaaleykum salaamaaleykum gaay ndaw si ku katt dëj ndeyam la mu saaga la nga daw nga ragal dañ lay intimidate mais xam nga man intimider ma yombul <laughs> am naa xam-xam maa ngi mos weccat <laughs> maa ngi Amérique tëdd loo sangoo ma sangoo ko loo wirde ma wirdoo ko loo takk ma takk ko toog di la xool dara nga ci mënul moo tax neexumaa intimider te xalaatuloo sa jox ma na ma waxal ma loolu bokkul sa xalaat sax <laughs> doo ko def waaye tey ku ci bëggoon a génn weer benn boroom xaalis ñu jël ñetti tiktokeur ñu tiktok la ñaari fan génne la sa ay ay nga noppi su ko defee nit ñu ñëw. et eh yow jànq bàyyil coow li dégg seetaan nga laay fi diw dégg nga liñ la wax xool nga commentaire yi sa xarit yi ñoo lay traumatiser ay duulkat ngeen gis ngeen képp ko gis ñuy saaga sa xarit nga yónnee ko ko yaa ko saaga ndax boo doon xarit bu baax da ngay fexe ba bum ko gis parce que wan nit wax ju ñaaw lu mu koy jëriñ léegi léeg nit def ma ko yónnee ma fuñ ma saaga. damay xam ne yow fa nga toll mais doomu ñu saaga ko muy sa xarit taxawoo défendre ko woowoo waaj na ko supprimer lii nga dem wan ko ko kaay xool fi ñu lay saagaa nit ku baax du la ko def xarit du la ko def man ku ma ko def rek xam naa foo toll ci man damay ree rek bàyyi la ci bi du ma la sax tontu mais xam naa ne yow doo xarit bëggoo lu mooy ma génn tontu rek nga seetaan parce que looloo lay neex yow faale woo ma yëgoo ma yëgoo lan lay sentir mais la may wax mu di la képp accompagner loolu rek la ci ñor. waaw wax ji nag yéen ñi may yónnee yéen a ko moom ngeen jël seen wàll ak yéen ñi yónnee nit leneen ngeen jëlale ci seen wàll doomu aadama boo ko bëggee ñu wax ko lu naqari danga ko koy nëbb danga ko koy dawale bu mu ko gis for his mental health for his peace and tranquility mu jeex c'est pas waaye tey boo ci duggoon sa soi-disant yi ñi nga gëj a dégg nag lay doon coucou ça va jànq eh yow dégg nga li la kii wax dama koo mere kii dafa réew ñenn ñi di la jeey di la jox information pour nga tontu ñu lay kaa te ña lay kaa ñoo leen di jox information bañ lay kaawee ñoom ñoo la koy jox ñoo koy jox ñooñu kon buñ la bëgg neen la rek du dëgg kon yéen jànq ji nekk senegal maa ngi ubbi commentaire yi ngeen commentaire tuuti après dama koy tëjaata ah. deux minutes laa leen may gaaw leen commentaire yéen jànq ji nekk Sénégal mooy tondaku leen di jëflante góor te xamu leen lan moo ko yëkkati ci yéen mooy tondaku leen loolu ci la ñuy yàqee seen àddina ci la ñuy yàqee seen biddiw ci la ñuy yàqee seen wërsëg ci leen lay tëjee teg la benn place ñoom ñuy gën a yëkkate ko di gën a dem lii may wax nag dama leen ko wax rek te yàlla tax waaye lu ma xam la suñ defee seen ñaawteef nag influenceurs yi ñoo leen di baak di saaga ñi leen di attaqué ak jeeg ji mais wallaahi nit ku baax mënta ànd ak saagakat def ko xarit loo koy doyee pour ëllëg boo mënta saaga mu saagaal la sa simple bu leen nekk ay dof yow nga ne ku baax nga ci social ngay dox lu baax la tax a jóg looy xaritoog saagakat ba koy jëndal téléphone ak jox ay millions loo ci bëgg pour ëllëg su la nit waree waxal lu ñaaw saagakat bi jóg sampu ndënd mais biñ ko essayé ci man demul saagakat ba léegi ci ay jëla mujj parce que damaa xam fekkee dund xam li xew su ma leen dawoon rek konoon du am ku défendre nit ñi ëllëg mais faaw ma taxaw ñàkk fayda ñàkk solo wàcc ba seen niveau pour loolu arrêté ndax ëllëg ku bëgg a wax nga mën a génn wax waaye su ma noppi woon man suñu ma noppi loo woon kenn dootul waxati den naan yii gis ngeen ni ñu def Cheikh Ahmed moo tax ma takku rek bu laajee musóoru ma musóoru bu laajee woddu ma wodd bu laajee soccu ma soccu geer geer bi ba mu jeex la ma doon geer billaahi wallaahi tallaahi du woon sax ay ñoom aadamoo Californie c'est ëpp na loolu ëpp na loolu billaahi billaahi ëpp na loolu yéen du leen comprendre sax maanaam fi may xalaatee fi may waxee sax ngeen dul comp yéen mais tey jigéen ju bëgg a wax dinga wax ndax jigéen ju wax ñu attaqué la rek wan naa nit ñi ñu xam ne dañ lay attaqué parce que dañ leen di fay léegi côté boobu fatt naa ko maanaam fatt naa fépp léegi jigéen ju doon victime mën nga génn wax te kenn du tontu moo tax li may liggéey ak li may def saaga yaa ngi ñëw ak xaste yi mais wallahi su ma deyee ba video yi di daw la ñuy door a comprendre parce que lépp laa xam tànn yoon bii mu leer ma ne maa ngi dimbale nit te xaw ma ko maa ngi jottale nit lu ko jafe woon maa ngi fatt fu bëri te xamuñ ko mais actuellement nii nii nii <laughs> nit ñi duñ xam dañu jàpp ne dama réew rek ñëw naan kooy bajoo katt non non non loolu c'est juste ay moo yu may utiliser rek pour attirer seen parce que kooy ngeen bëgg ñi bëgg bajo mais la may wax mu ngi ci bajo bi ku dégluwul doo ko dégg waaye bis bu ma dee bañ tër suma niw ba sul ma ba vidéo yi di daw ba xel yi màgg ba néew ju doole ji génn ci néew ju doole su boobaa lañuy ñuy door a comprendre lan la Cheikh Ahmed daan wax mais pas tey tey nii dañuy foog ne kuy wut bës la rek wala nanga ëpp na loolu yow tamit bës xam neen ko xam neen senegal xam neen nuñ koy cree xam neen bés xam neen sénégalais xam neen seen mentalité xam la leen di ñor mënoon koo créer positivement mais ki ma doon ëpp naa loolu nee naa leen maa ngi ak saafara soo xam ne bu ma ko sangoo dëkk bi yëngu te ku ma bañoon bëgg ma mun leen ci dara fan yëlee laa ko laal dañoo am baatin toog ci